Nous sommes dans ci administration muy dans bi ñu le centre départemental d'assistance et de formation pour la femme et la jeune fille Nous dépendre du ministère de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants bi madame le ministre Ndèye Diop Dieng muy place bo xamni Rôle. moy encadrer jigen taxawuko ci wet gu ne Ndeye Saly Diop Dieng defe naa madame la ministre bi mu ñëwee fii ba léegi defe naa ñu jigéen département Mbacké la njëkk recevoir bi mu toogee bi muy financé ca gaar ba financement yi defe naa jigéen département Mbacké la njëkk finance financé defe naa li muy def social moom naka jekk avant mu yor poste ministériel bi ma def social lañ koy woowee ndax def ko judduwaale dina am ño xam dañ ci ñëw bi social fi defena journaliste yi am nañu ko fekke ñaata yoon la ànd ak yéen madame le ministre Ndeye job Diop yoon ni ma ci département Mbacké di taxaw ay nit ay jigéen ñu nekk difficulté ay ñu lak seen kër lak et cetera et cetera je parle sous le contrôle de l'autorité administrative. li tax mu ñoo fi barki dem mu ni nak dina am na jigéen ño xamni dañu nekk dans le secteur informel di yëngatu. Manam, ñi avons yor restaurant ñi yor ay euh, euh, salon de coiffure des yor ay salon de couture ñi def transformation de légumes ñi def élevage ñi di def euh, lenen ak lenen mu ni ñooñu xam ngeen bu mbass amé ñu ñep dañuy maytu même sa kër sax euh kenn dugatu fa kon activité yep dafa taxaw président sant ko ni ko na jàppale jigen ñooñu mu seet nak fi nga xamni fa la Covid bi nous avons fofu une phase pilote. Nous commencé dans les 4 départements de Dakar, les 3 départements de Thiès. Nous avons fait tout le monde. C'est ce que nous avons fait. Le financement a été fait. 8 départements au niveau national sur les 45 départements. Maintenant, nous avons fait des départements. Nous avons fait des départements avec Drôme madame la ministre amna na cër bu mu jox Touba département Mbacké bu baax a baax ñu koy ci remercier wat bu baax légui nak mu am ñu wara jël 1000 ménages 1000 femmes entrepreneurs sélectionné len mi sélection bu metti bu doy war le département de Mbacké dana jox 110 manam témer ak fuk mu ni déedéet woo ma téléphone madame Mbacké ñata la jox pour le département mu xamul ma na nañ ko yokku mu yokk ko ba téeméer ak madame le ministre jaar 160 femmes entrepreneurs mais comme administration la ñu nekk ñu xaar réunions, yi ñëw xaar lettre bi gouverneur jaar ci sunu préfet du département bi mu woote réunion CDD Nous ko war a seq yëpp ko avec les sous-préfets de de des trois arrondissements à savoir l'arrondissement de Ndam de Kayel et de Taïf ak moom ñu toog def réunion daal ñuy bàyyi ñu ciblé mais ciblage dafa metti mooy tànn ndax ku tànn rek yaa bàyyi maanaam am na or am na koo wax léegi ku tànn yaa bàyyi ndax koo tànn rek yaa ko bàyyi mais bu ñu xamee ne ñëpp mënuñoo am tànn bi dafay metti la tax sax tànn bi yomb ci ñun tuuti dafa am ay critères yu ñu tegal nii ngeen di tànne nii ak nii ngeen war a tànne bi ci njëkk mooy

ñoom lañ leen jox dañ koo fay ba matal mais jigéen département Mbacké ba léegi waa Touba ak Mbacké am na ñoo xam ne zéro faute dañoo fay loolu yëpp ministère de la femme moo ko def mais tax na ñu ni appui yi di ñëw premier critère mooy ku amoon borte loolu te fayoo bokkoo ñooñu dañ leen a éliminé fis kon nag ñooñu bokkuñu ndax lebal nañ leen fayuñu te am na deux ans beneen bi mu ni nañ ko jox ñi nga xam ni dañ doon liggéey moo xam ne bu ñu jógee dina leen fekk seen place ku ci mel ni Maguette Badiane mais ma bàyyi ma fen bañ koy tànn fekkewu ko ku dem mi seeti na ko place am la ko fekk muy salon du couture yi maanaam ku am bérébu liggéeyukaay mais commerce bokku ci jënd ak jaay bokku ci ci loolu la ñu ciblé bi ñuy ciblé defar mu yomb lool ndax laaj ñu benn dossier tey damay profité wax ni financement yi du pour groupement wala c'est individuel

Nous dem ci préfet des ak sous préfet des ak le représentant des maires ak les services techniques à savoir le développement communautaire le service de l'élevage le service du commerce le service du chef de renseignement généraux bi rendre compte au niveau national Nous ñu des ñuy def dara lu lëndëm amu ci bi ñuy ba proposition ba jox ko pour mu valider parce que moi mooy valider mu ni maire yi souligné ni quota bi nga jox ëpp

ci loolu la ñuy yónnee ko banque ba ñu commencé woo nit ñi. SEDAF bi ñuy wax c'est un service. c'est un service le président Macky Sall une fois que ñu fal ko c'est le président de tous les Sénégalais man mii fi toog en tant que coordinateur SEDAF de Mbacké jigéen ñëpp laa fi nekkal te defe naa bi ma fi ñëwee ba léegi moom laay doxal dafa am loo xam ni buñ koy kaas naan gis ñu seen bopp ay parti ay affaire authentique jàppale wuñu le président Macky Sall jàppale wuñ ko ñun liñ doon def sax jël euh, euh, parti au pouvoir jox le financement bi loolu moo doon bon doon problème bi mais financement yi appui dañ koo teg ci transparence moo am lu fi xew démb démb moo am lu fi xew ay femmes manifester pour lan mais ñaar ñi ngeen gis ci kanam ku ne am nga ci financement yi ba ubbi seen compte ñaar ñi njëkk a jël parole ku ne am nga ci financement yi ba ubbi jël ubbi ba ubbi compte ña nekk ca gannaaw nag ñu gis leen xam leen dañoo leb 700 mille critères yi ñoom ci lañ bokk fayuñu bor du am rakk nañu waxante dëgg may waxal nañ dëri suwaat xel yi miss de la femme wax na ko ba mu demee kayal la wax duma ko duma delu siwaat wax na ko démb kayal nañu fay bor yi ñu amul woon am di wax rek nag ni ñoom gën ñu ñu fi toog te amuñu financement maa ngi jël benn exemple rek laay jël kii ñuy wax Daba Macky bañ ne ko bu ñu nee Daba Macky président Macky Sall ko nit ñi xamee amu ci financement yi ñu fayul amu ci financement yi kon où est problème ku jàppale président Macky Sall da ngay nangoo ñàkk jox ñeneen ñi mais ñoo nekkoon ci parti bi ñooy am il faut que ça ses il faut que ça cesse Ndeye Saly Diop Dieng néew ma benn ministre baaxul mais dañ cee yeex a jot ñun. le ministre Ndeye Diop Dien ñu wa département Mbacké dañ cee yéxa jox ndax dama cee xam dara en tant que coordinatrice du SEDAF de Mbacké mais en tant que responsable politique APR moom ngàcce nga la ko président Macky Sall di sante dina ko def ba def lu mu mënul mbokk yi nak di len way di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com point te bu len faté di bëss cloche bi